ne jege nañ population yi parce que wax nga ko porte à porte la ñu def moom la ñu privilégié parce que loolu suñu expérience moo tax ñu xam ne élection biir kër yi la nekk du question que dangay ngay nekk ci tali yi di def caravane wala ngay def yenn bruit yi mais dangay dem à la rencontre des population waxtaan ak ñoom xamal leen sa programme ngir ñoom ñu mën a apprécier par rapport ak ñi fi nekk xam ne yow mi kat am nga candidat bu baax waaye it am nga programme boo xamante ne war na mën a dal xelu Sicap Waaye loolu moo tax ñu préféré gën a accentuer wu ci ci porte à porte yi. te gis nañ ne vraiment am na lu bari loo xamante ne dolli nañu ko ba tey am nañ confiance gëm ne élection yi allah suñu loxo lay des ñun benn bokk yaakaar. ci doléance yi ngeen taataan ci li ñu si gën a marqué askan wi déjà am nañ seen ñaan am nañ seen ñaan tey jox nañ ñu ay conseil wax ñu ne tey bu ñu toogee ci boppu mairie bi bëgg nañ ñu gën leen a jege. jege leen ci seen ay jafe-jafe yi nga xamante ne boobu ba tey commune bi soxla nañ ko te mënuñu ko woon am donc ñoom tey am nañu yaakaar si madame le ministre Zahra Iyane Thiam pour que bu fi toogee mu mën a taxaw si saafara jàngoro yooyu nga xamante ne am na ci commune bi lu mel ni demande nañ ñu problème mu pavage tali yi am na yoo xamante ne euh, baaxul pratique c'est praticable ak li nga xamante ne mooy lumière yi tey si Cap am na côté yoo xamante ne dafa lëndëm bu guddi jotee nit ñi duñu ñemeeti sax génn donc yooyu yëpp askan wi jox nañ ñu ko te it noté nañ ko déjà amoon na jëloon nañ ko vraiment ci suñu programme euh, détaillé ci lu am solo mais li ñu askan wi dolli aussi noté nañ ko te bu ñu fi yàlla tegee gëm naa ne duñ leen décevoir parce que ci seen euh, waaw rek la ñuy mën a dox ak li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy xaar ci ñun ñu nekk ci doon seen i Baye Fall. waaw bilan 14 jours yi c'est un bilan de satisfaction. ndax nous avons abordé la campagne avec sérénité. Ah. Nous avons abordé la campagne avec sérénité maanaam dugg nañ ci campagne bi ci xel mu dal déroulé ci xel mu dal kon bu ñëwee ba ci njeextal mi xel mu dal rek lañuy ñuy mën a am. li tax nag ma ne xel mu dal dañoo am dat boo xam ne li ñuy njëkk a gis ci moom mooy dafa dal bëggul violence ba pare. am un programme ambitieux boo xam ne programme boobu ñu gis par rapport ak yeneen candidats yi son programme moo nekk le meilleur profilam moo nekk le meilleur profil kon ñun loolu moo dal suñu xel ndax wax dëgg yàlla dugg ci yëf bisimilahi rahmaani rahim di ci dugg di ko def étape par étape ruq bu nekk Sicap de 1 à 6 extension fu ne nga dugg fa seet na ku ne am bàyyiwul jeune bàyyiwul jigéen bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul aussi fépp foo xam ne ñu ngi fay def culte maanaam bàyyiwul jumaa bàyyiwul euh, jàngu bi bàyyiwul chrétien bàyyiwul kenn kon fii ñu yegg si tey pour ñun nous avons vraiment une satisfaction la ñuy wax li ñuy yaakaar rek mooy xam naa ne suba ce sera la consécration ndax li mu liggéey incha allah suba la ñuy xam ne moom du comate li mu liggéey incha allah résultat bi dina ñëw suba. léegi yéen seen candidat bu jëlee ndam ni lan ngeen di xaar ci euh, bu jëlee ndam ni li ñuy xaar ci moom mooy lii nga xam ne commencé woon na ko di ko def booba jëlagul ndam li parce que avant mu jël ndam li dafa teg ay paax paax yi mu teg moo conforme moo moo confirmé que ne moom war na mun a am maire bi ndax profil am profil bu baax la li ñuy wax mooy dañ ko ciy accompagner parce que luñ ko war a ajouter. moom ci boppam wax na ak ñun ba ñun dañoo jël programme am ak yi mu war a def ñu approprier ko suñu bopp. kon dañ ko approprier war a ànd ak moom gunge ko pour li nga xam ne préoccupation waa waa waa SICAP la ñu ànd ci ak moom jàppale ko ci ba résultat bi mu ci bëgg a am mu am ko ci. loolu moo tax ñun amatuñ dara loo xam ne lu luñ koy war a yokk la xanaa peut-être encore des concertations pour xam naka la ñuy def. pour accompagner ko ba lii nga xam ne proposé na ko si Kapoa yi mu mën ko def mu nekk réalité loolu lañ amoon luñ ci wax. jërëjëf euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Racine Niang président conseil de quartier mais également investi sur la liste de Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune de Sicap Liberté. dañuy wax ni tey c'est la fin presque de la campagne ñu ngi sant yàlla le programme de la candidate de Zahra euh, Iyane Thiam mais population yëpp génn nañu parce que xool nañu seen mbébét xool nañu diagnostiqué nañu seen ay problèmes ñu apporter ci ay solutions ay esquisses de solution et ces solutions la déjà depuis quelque temps gis nañu mi ngi déroulé wu et léegi nag campagne bi permettre na à ce que tout un chacun mën a daw gis sa ay mbokk sa ay am di jàmm pour ne leen kaay leen ñu jàppale gox bi kaay leen ñu jàppale suñu bopp kaay leen ñu jàppale liste bi nga xam ni moom la ñu investir Zahra Iyane Thiam pour le devenir des SICAP parce que dañu soxla ne SICAP SICAP bu bees mais SICAP de référence mais au-delà de cela SICAP bi nga xam ne yaakaar dana fi dellu si loolu moom moo tax ñëpp ñu dajaloo tey jii di def benn caravane pour dem fekkee meeting bu dernier de clôture bi au niveau de Nord Foire ci pour le candidat de la ville bu Diouf Sarr. meeting départemental bi nan ngeen koy waaw meeting bi euh, sant yàlla parce que gis nañu ne quartier bu nekk. ñu ngi mobiliser et la ñu ñu laaj sax defe naa ni ëpp ah, la ñu soxla ëpp na la ñu la ñu am mais kon ñëpp de ref nañu adhésion massive autour de la candidature de Diouf Sarr mais ñëpp nee nañu également dinañ def le maximum pour taxaw wax wane seen cofeel ndax ndakaaru bi ñu bëgg ndax commune Sicap bi ñu bëgg loolu yëpp ci kaw euh, ñu ànd ak euh, madame le ministre Zahra Iyane Thiam pour devenir Sicap mais pour le devenir de la commune et ainsi que le devenir de la ville ginnaaw aujourd'hui mën nañu wax ni yéen vous êtes optimiste ginnaaw li ngeen gis ci mobilisation bi. waaw ci jongante bi nous sommes nous plus qu'optimistes parce que gis nañu les réalisations gis nañu également le bilan gis nañu espoir bi nga xam ne moom la les candidats de la ville de Dakar ou le candidat ainsi que ses adjoints ñoom la ñuy incarner parce que ce sont des candidatures optimistes mais ce sont des candidats également de l'espoir et de l'espérance loolu la ñu gis ci Ndakaaru gis nañu ne Ndakaaru bii ñu bëgg ci kaw. li ñu ko soxlaa il faut que Diouf Sarr mën ko téye bu boobaa incha allah le 23 janvier ñu mën taxaw changer xar-xaru kanam euh, Dakar parce que dootul xeex soxlaatuñu Dakar bu nga xam ni xeex lañ ci soxla mais dañu soxla Dakar bi nga xam ne référence la vitrine la et au niveau de vitrine quand on parle de vitrine ni Ndakaaru nekkee woon au niveau de l'Afrique mais noonu lañu bëgg mu dellu fa nekk fa au niveau de l'Afrique pour pouvoir au moins un euh, xam nga ñun yàgg nañu politique am ay leader suñu coalition ku ko gis depuis euh, ñu toog fi je pense que on a fait plus de douze ans ensemble te loolu yëpp ci jàmm lañ ci nekk ak ci cohésion donc ñun foofu la ñu puiser suñu force gëm ne euh, population yi mënoo ne da nga leen di diriger ba pare di leen wan violence da nga leen di wan dal wan leen ne yow mii li ngay wut xam nga ko te buñ la ko joxee di nga ko mate pour dem nag di verser wu dans la violence c'est parce que amuloo argument xaj na amuloo programme te it buñ la fi tegee ëllëg amuloo dara loo mën a proposer population yi alors que ñun nag c'est le contraire moo tax ñun mënuñu verser wu dans la violence dañuy ñëw présenter suñu programme euh, présenter suñu candidat xam ne kat ñun kii ñu yor euh, vraiment mooy espoiru Sicap ki ñu yor buñ ko joxee Sicap incha allahu rabbi dinañ nekk commune de référence ba nga xamante ne tey ñëpp dañuy ñëw roy suñun moo tax euh, vraiment ñun ñuy moytu violence di ko moytu suñu bopp di ko digal ñeneen ñëpp pour ñu moytu ko ndax violence amul njëriñ commune bi ñun ñoo ko bokk ku fi gaañ nit defe naa sa dëkkandoo nga gaañ donc euh, ñu def ko ci jàmm def ko ci fair play ba nga xamante ne bu dimanche wala lundi ñëpp dañuy nekkaat ci jàmm dund si jàmm te xam ne ñun ñëpp ay doomu Sicap Liberté lañ élection la kii day gagné kële ñàkk mais rek ñu def ko ci fair play. waaw bien sûr ñun loolu xam nañ ko bu baax parce que ñun élection maîtriser nañ ko euh, kek code électoral lépp loo xamante ne digle na ko suñu sañ-sañ fi mu commencé ba fi mu yem maîtriser nañ ko xam nañ ko moo tax euh, xamal nañ ko tamit suñuy ñooñ xam nañ na campagne bi tey si wi lay jeex te allah allahu rabbi bu jeexee dinañ respecter règle yi def leneen loo xamante ne beneen phase parce que même bu jeexee minuit ñun am na loo xamante ne c'est à l'interne am a mën a organiser dimanche ci journée boobu lépp ci dal population yi mën a génn voter ci jàmm ak ci salaam kii gagné incha allah benn bokk yaakaar ak suñu candidat gagné incha allah ñu continuer suñu dund comme niñ ko doy defee rek. waaw euh, bilan bi ñuy def def c'est un bilan satisfaisant parce que population yi dañuy wax bu ñu dee wax euh, vis-à-vis VAD dañuy wax ne également jongante dañuy ne gisante ñi dëkk ci gox bi ñoom ñooy gisante ñooy nemmeekonte e ñun ñooy wax ci waxu programme. programme boobu dañuy dugg bët bët kër ak kër daal di ne waxtaan ne lii kat la ñu sox lii la ñu namm ci gox bi nit ñi adhéré ci parce que bu boobaa dina am jong dina ñu waxtaan ku ci nekk ki nangu dina la ne man nangu na ki nanguwul nga waxtaan ba jubóog moom bu ko defee ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp. loolu moom mooy wane nii euh, population yi adhéré nañu massivement au programme de la ville de Dakar mais au programme également de la commune de Dakar bi nga xam ni moom la Zahra moom la Zahra Iyane Thiam ñuy wax soxal na yëpp parce que ku ci ne ñii dañu nekkoon ci ay liste ñii nanguwuñu woon ànd mais bi ñu demee ba waxtaan ñoom ñëpp daw nañu daal ne gis nañu xam nga c'est le vote utile bu ñu soxla candidat yi rallié de même que les autres yi nga xam ne daw nañu gis leen gis nañu ne il euh, y a un intérêt majeur c'est la commune qui a besoin d'un devenir meilleur et devenir boobu kan moo koy incarner kan moo yor profil bi kan moo yor expérience bi kan moo mën a jar gérer social bi social loolu yëpp la ñu xool daadine en la personne de Zahra Iyane Thiam mën nañu jël ne candidature Benno Bokk Yaakaar bi am na espoir bu muy incarner yaakaar mi ngi ci et moo tax ñu ne nag xam nga euh, ñëpp ñëw buñ ci jàppee day gën a yomb bu boobaa victoire bi la victoire sera écrasante incha allah le 23 waaw loolu nag xam nga dëkk tamit dafa am yoon ndax ñooñu ay doomu jàmbur lañ ndax euh, nit boo nekkee ci gox mooy li ma wax léegi da ngay moytu ay ay baaxul te ay du yem ci boppu boroom kooku ñu gaañ tey maara deytaane xaj na bu bu bu bu fekkonte ne amul woon taxawu mën nañ ne lu lu lu naqari ñëpp dina am ñoom ñi ko def sax dina leen naqari mais heureusement teel na am taxawu ba fi may wax ak jógeegul hôpital bu defee li nga xamante ne mooy ay premiers soins bu ñëwee incha allah dinañ xool li nga xamante ne mooy yoon parce que mënuñu continuer tam si siège bi fu ñu fekk suñu ndaw ñi di leen attaqué mënul nekk ndax ñooñu it ay doomu jàmbur lañ ay doomi Sicap lañ kenn waru leen a jóg di leen xoqatal comme ça donc loolu après dinañ xool man taxawaay lañ siy am. xam ngeen violence boobu ñan la. waaw am na am na ñu ñu wax ne ñooñu la mais loolu yëpp mbirum yoon la. ñun fi ne nii li ñuy war a def rek mooy faj suñu ay doom faj suñu ay rakk ba pare bu ñu paree nag ñu xool suite bi lan lay doon.